masawa isdaaya alhamdulillah ma luñ la defoon di waaye déñ na jo soxlawul faati wala falax ak boo ñibbee dama liggéey amul faati amul falaxi amul naasi boo liggéey boo demee damay liggéey fii ku fi dugg luñ la def déñ na kër gi moom fii kër gi xaw ma ban kër di waaye kër gi insha allahu ku fi dugg luñ la def dëñ na ni dëkk buñ seppi jaru sa faatiha faatiha bi fi jub doy na sëkk te lii yàllaa ko wax mu ne wala na duma leen bàyyi bu boobaa muxtalifiin nag ngeen di wute illaa lu dul man ka nga xam ne raxima yërëm na ko rabbu ko sa borom mu génnee ko ci lëndëm yóbbu ko ci leer génnee ko ci diine jam ne woon dugal ko ci diine lislaam kon kañ lañ la defoon ba mënoo liggéey génn nga ci yaa ngi ci leneen walizalika mu ne naka noonu xalaqahum la leen bindee moom sa borom wa mat la matale kalimatu rabbika sa kàddug borom ca la matee ci lu mat mu ne ca ña nga xam ne maa leen tëkku mooy ñi la def lu mel nii mu ne la am la am na danaa feesal jahannama jahannama ba mu fees del minal jinna ci ci jinne wannaasi ak nit ñi ajmaina mboole seen mu ne wa kullan kenn ku nekk ci ñoom naqussu nettali naa ko aleyka ci yow min anbaai rusuli xibaar yi yonent ya jiitu woon li lu tax mu ne maa nu sabbita lu tax loolu ñu dëgëral bihi ci nettali gi fu aadaka sa xol bi ba dootul jéngi jëm fen wajaa dikk na fi haasihi ci àddina bi alxaqu alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mawizatan diwaar wa zikra di fàttali lil muminina ñeel jullit ñi waxul neel yow yonent bi lilladina ñeel gaa ñi nga xam ne laa yuminuuna gëmuñu yamalu jëf leen lu leen neex rek dal leen ci kaw dukkure liggéey leen ko sànni leen ko kort yéen a xam ak ñi mel ni ñoom yamalu jëf leen ala makanatikum ci seen place yooyu li ngeen toog di def xarfa fuufa yu leen neex ngeen def innaa naka man yàlla amiluna danaa jëf jëm ci seen kaw wanzuru xool leen yéen ñiy yëf loolu te dëkkee ko muñandeku naa leen muñandeku leen rek wantaziru muñandeku leen innaa man yàlla muntaziru na maa ngi leen di muñandeku ba jàppaleen te ku yàlla ne mag ngi lay muñandiku ba jàpp la dina la jàpp ndax laa man jaa wala man jaa illaa ilayhi waaw lu waaye mën a nekk rek dee lay xaar te ku dee dajeeg yàlla te ku dajeeg yàlla di nga xam ne daje nga buur bu mat buur te mën a fay naa naka ñun yàlla muntaziruna ñu ngi leen di muñandiku rek ci lan ngeen tuub ma baal leen wala ngeen wéy ma duma leen ñaar yooyu rek ngeen tuub ma baal leen wala ngeen wéy ci ni ngeen nekk ma làpp leen ba ngeen nooy waaw walillaahi aji sax la ñeel buur bii ñuy wax yàlla lu ko ñeel rëy bu kumpa asamawaati asamaan yi juróom-ñaar kumpa yi ci nekk yépp moo ko moo ko xam keneen xamul wal ardi ak suuf yi juróom-ñaar la ne ci kumpa yépp moom moo ko xam wa ilayhi te ci moom yurja'u lay delluwaat al amru mbir yépp kulluhu mboole seen soxol sedd na yaa ko moom mu ne faabudu jaamu leen faabudu jaamu leen wa tawakkal ngeen wàkkirlu alayhi ci moom yàlla kon wàkkirlul ci yàlla jaamu ko te wàkkirlu ci moom rek la dëkk wa maa rabbuka déet sa borom bi gaafilin muy aji sàggan amma ca ya nga xam ne taamaloona yéen a ngi koy jëfee saar yu jeex takk te ban saar la sóoratu Huud ban saara ci topp sóoratu Yuusuf kon nag génn nga ci lëndam guñ la defoon mu tegewaat ci xoolal li gën a yéeme sóoratu Yuusuf moo ci topp te Yuusuf ak doomu bàyyi yàlla woon ñoo ko jëloon sànni ko ca teen ba fu mujj nekk yonent nekk buur xaw ma loo amoon di nga amaat lu ko ëpp de yonent yàlla yuusuf moo ci topp Huud moo jeex yuusuf topp ci bi ci yuusuf toppee lu xew ci yuusuf doomu bàyyee ko woon ndax lan teraanga ju ko yàlla jox ñu xam ko teel koo xam ne du fi amee sëriñ Cheikh Tidiane si nee na yàlla ko am fayda la bu rëddee nga far mu ne mu rëddaat mu ne boo faree mu rëddaat balaa nga koo far mu far la yow bàyyi fi rëdd mu ngi dégg li may wax ci am na Ibn <laughs> kañ Serigne Cheikh Tidiane si nee na yàlla ko am fulla la waaye dafa am patience nee na bu rëddee aw rëddam nga ne du fi amee far ko mu ne du la wax dara danaan teyoo ko da nga matadi mu ne mu rëddaat mu ne boo faree danaan dafa gàtte xel benn tey rek naa ko bàyyi mu ne bu rëddaatee nag balaa nga koo far mu far la bàyyi fi rëddam kon dëkk rek bismillah euh, mbooloo mi bon yaakaar naa ni sama sama xol sama xol sedd na ñetti weer maa ngi Sénégal maa ngi fi depuis le septembre sama waa kër xamuñu ci lu ma nekk bu ñu ma téléphoné sax damay raccroché ndax boroom kër bu dem ba ñu ne coupé nañu sa courant coupé nañu sa ndox say doom dematuñu école lu yéeme lu doy waar la Chérif ki ma daan dimbali dee na kii réception la bu ma defal en 2004 ca Tiwaawan. ci ci Al Amin. 2004 maa nekk la première personne maa ko jëlee Tiwaawoon yóbbu ko Bamako pour taalibe Tijaan ya fa ne ñu tudd ma donateur waaw la donateur bu toogee tey ba mënatula donné ndax dana rafet dina neex ñaari dërëm yi ma jox nit amatuma ko barke Seydina Muhammad bon nag Chérif lii nga ma wax sedd na sama xol su ma doon takk samay Euh, dàll yooyu ngeen dawee nu ngeen ko tuddee. Euh, training su ma doon takk samay training di daw ba ba ma ko dinaa ko def ndax bu ma demee liggéey ndax liggéey bi moo ma ñor mille 2017 laa yóbbu sama sœur Màkk 2018 laa dem Màkk ñaanal ci sama yaay def ci ay kiraama yu doy waar mais 2019 ma liggéey ci lu ñaari weer mais lu yéeme la te mënatumaa dugg aéroport te am naa fa 19 ans wallaahi. borom kër gi ba may liggéey ak moom benn avion la am liggéey naa ak moom ba mu am 27 avion bu ma jubee day bu ma jubee day day tiit mu ne ma mais mais monsieur Doucouré qu'est-ce qui se passe mais moi je ne comprends ma nekk ko non reste calme c'est un problème africain tu ne peux ba ñu nee samedi la gàmmu ba ñu nee samedi la war a gàmmu le 8. samedi avant samedi le 8 bi la taal otoom ñëw sama buntu kër ca assis ji koron yi ca Bamako gaare ne ma rentre ma dugg mu taal climatiseur bi yàlla rek ay sama seede mu dindi 3 millions de francs fa jox ma ne ma va faire ton Maodo te tubaab la c'est un hollandais il fait 2 mètres 5 maa ko takkal jabar ma ma ne ko ah mu ne ma va faire ton Maodo après quand tu viens on va voir qu'est-ce, parce que lui il ne comprend rien ma ne bon nag baax na sama jabar ne ma léegi nag nooy def ma ne comme dañu am doom buy jàng anglais mu nga Accra te man amel naa la un million un million deux millions la ñuy xale bi par an ma jox ko un million mu ne naa ci teg un million yónnee ko Accra loolu la def un million bi ci des ma ne ko bàyyi ko ci kër gi ma ne ko un million bi dama koy gàmmoo mais Serif li gën a yéeme moo di barke Seydina Muhammad bi may ñëw toj naa quatre pneus mais quatre pneus Prado bu ko toj ñëw naa ba kuppantum mënatuma dugg kaw la parce que amatuma du yu ma dawee benn waaye laa mujj téléphoné woo ko mu ñëw mu andi ot gaare otoom jën jël ay pneu def ci ñu def changé pneu yi indi ñëw gaare ma ne ko oto bi dootuma ko dawal mu ne ma lu tax ma ne ko parce que oto bi li dal ci sama kaw mu xupp ci oto bi Chérif. Hmm. oto bi démb laa ci jot. billaahi wallaahi taala démb laa jot ci oto bi tey ma ñëw fii ba ma ñëwee ba tey ñu ngi koy réparé te oto boo jënd dara jotu ko bon nag mbokk yi maa ngi leen di ñaan Chérif mii nekkuma fi dama leen koy dénk. waxuma lu ko waxuma lu ko xos yi waaye weñ bu mu ko laal weñ weñ bu mu te bu mu tegu ci kaw wallahi azim li may wax li may wax dama koo xam juróomi dërëmi kayit ku ko mës gis fii ci yéen juróomi dërëmi kayit ah mas ngeen koo gis El Hadji Seydou Nourou jox na ma juróomi dërëmi kayit addi El Hadji Cheikh Omar Fouti man en 1962 fële ca Ndakaaru yi lépp jeex na takk man may seet bés bu ma neex ma ne la dawalaatal sa oto ba yegg Mali benn pëne sax du toj maa ko garanti benn pëne laa wax du toj boo yeggee it wool tubaab bi ne ko je je travaille demain looloo gën a looloo gën a gaaw kay incha allah bu la neexee nga toog ba dimanche bu la neexee nga toog ba altine wala dimanche ci fajar rek nga départ dem sa yoon dégg waaw toogal bi dimanche ci fajar nga départ ndànk dem sa yoon hmm? ah, te ci kër gi ngay fanaan lenn rek laa lay ñaan del jullee fii fajar wala am na fooy fanaan foo dal fii euh, hmm. may ma ma yeewi car na car na ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla Mansour newu fi waaw dafa am dafa dem Tiwaawan ana Pape Modou ma Pape Modou duggal sama néeg am na kaamil bu ñu ma jox léegi xoolal batan bi xamalaa na wasifa bi nii ci kaw ñaari kaamil la nga fa indil ma ko rapidement léegi yàlla def na ñu ngi lay sant bu baax sa waajur man li ma jàng ci moom mooy diggante sëñ Hadi ture ak Thierno Bachir te yàlla mi leen fi dajale nga jógee ca Mali daanaka rek Origno foofu ne. fa la jógee. xam nga kon soriwante ngeen. bu bu métti ah, moom mii fa la jóge foofu mooy mu ngi door a teg tànkam fii dégg nga mu ne foofu mooy Mali. foofu mooy Mali mais ñun fi ñu dëkk rek. waaw ah, kañ ci la dëkk. Ah, moom mii nag foofa la jóge ci barke baayam diggante wóllëre wi doxoon ci baayam ak Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Al Hadj Omar mu jàngal ko. baayam moo jàngal Thierno Bachir ba yeewee ko mu ñibbisi teg ko ci loxol alaaji Thierno Saïdu Nuuru ci histoire bu gudd Thierno Bachir yu nettali na ma yépp mu tege ci loxol alaaji Thierno Saïdu Nuuru bi nga wax ne moo la jox juróomi dërëm këyit 1962 addiya Cheikh El Hadj Omar kon ci barke boobu lay ñaanee ak jaarale ko ci yow mii nag sëñ Abdoul Amin bii moo daan wax ne sëñ Babacar Si radiyallahu anhu daf daan wax ne ku bëgg ci cere jobot ne doom ja yaa nguu <laughs> kon yaa nguu ci barke yow sa barke laa wax njëkk ak sa wër barke wayjur Cerno Amadou ak barke Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Alhaji Omar ak barke Alhaji Cerno Saidu Nuuru ak wëllëre wi doxoon digganteem ak Cheikhul Hadj Abdoul Aziz ci barkeem moom Alaaji Abdou Saïd Nour ci barke Sëñ Abdou ci barke Seydi si ci barke Cheikhul Hadj Malick yàlla bu la dara dalati ilaa yawmi yubaasuuna ku jéemati ci yow lu dul yiw yàlla na ko tële ni asamaan muccee ba kenn déggul fu mu rëññiloo daanu ni asamaan muccee kenn du dégg maxu asamaan yàlla na nga muccee noonu ilaa yawmi yubaasuuna nag laa wax ba bés bañ ci taxaw insha allah ci sa barke way jur yi te yàlla dina ko def léegi nag li ma ci dëxëñ yépp mooy lii rek laa ciy jël barkeeloo ko ndax yéene su dutoon loolu duma ko jël waaye kii moom dinaa ko jël tey laa koy dajji tey laa ciy commencé laal ndax yéene yàlla mottalil ko yéene li ci des yëpp nag yaay borom yóbbaaleen ndax yéen a bokk fu ngeen jógee te yëgoowu leen fii bu fi milliard ñëwoon nii laa koy paquetee jox la ko ndax Thierno Bachir Mountaga Daha Cheikh Al Hadj Omar bu fi milliard ñëwoon laa wax de nii laa koy paquetee teg wallahi wa sharafil quran tegaat ko ci sa loxo ndax lan Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Al Hadj Omar xam ni ko sa wayjur bëggee woon ak moom ni mu bëggee sa wayjur ba fii ma toog di wax yemalewu kook dara soo bëggee Cerno Bachiru beeg rek nel sëñ Abdu wala alaaj Cerno Seydou Nourou wala Cerno Omar Cerno Cerno euh, Amadou fam bés ma di ko foofu laa jeexale bàyyi la nga dem wakaam bi kër gi di door a pare këram bi ci wakaam ñu indil ma benn cadeau fii photo Alaaji Abdou Aziz bu rafet benn conférence bu ma demoon conference bi jeex ñu topp ci sama gannaaw ma ñëw gaare ñu gaare jox ma photo bi muy photo bu rafet bu Cheikh El Hadj Abdou ma ne photo bi du fanaan sama kër am na ko ma ci gën a yeey Cerno Bachiru laa ko yóbbul ma yegg wokk gaare génnee photo bi photo bu mag la damay dugg si rek mu ne nodd na Cerno Cheikh mu ne nañ woo Cerno Cheikh ñu woo Cerno Cheikh mu wàcc mu ne lu ma leen waxoon noon naa leen Serif Ibrahima léegi mu indi benn foto wallahi mu ne dañ ñëw ñu daaj fii photo photo yaa nga fa Cerno Seydou nuuru ñu daaj fii benn foto Cerno Amadou ma ne ci sama xol rafet nañ de waaye des na benn kontaanuma mu ne ci sama xol mu ne ma ñu gis ma sëgg ñu ne ca eh, baabam lan la mu ne Thierno Cheikh mu ne baaba lan la mu ne am na benn bu des waaye léegi sama doom indi ko lu ko wax ne maa ngi indi photo bi te man booba Thierno ngi fi waaye ziyaare ji ko sax faf dama naroon toog ba ci ëllëg sama dem ziyaare ji ko waaye bi foto bi ñëwee ma ne foto bi du fanaan sama kër Cerno Bachiru moo ko yelloo ma yegg mu ne ca daaj leen fii ngeen def ko fii léegi nag mat na Cerno Seydou Nourou Cerno Amadou Cerno Alaaji Abdul Aziz léegi jeex na ah hasard amul Serigne Cheikh Tidiane si nee na bu dee am na nañ ko boole ci turu yàlla yi gis nga kële toog moo di ñang bale Italie la jógee moom itam maa ko tax a ñëw am na koo xam ne Strasbourg la jóge guddee moo tax yegsiwul Strasbourg ak Paris huit heures de route la huit de route la daw fekk si ma Paris ñaan tarixa bi wëññeekuwaat huit heures de route nañ ànd ak yàlla kon Cerno li yëpp sa hàddiya la mm, dugalal waaw waaw déet la ca des nag bu ma la dafa bëggoon julli sa ginnaaw nee dafa mel ni rek julli na sa ginnaaw ba pare mhm. nee na instant nga ñaan rek mhm. nee soo wéeteeg sa borom nee na nga mottali yéene incha allah incha bu dul woon man mii nee na bu dul woon kenn su fekkoon ne nit la ku jógewul Abidjan sax di ko seet si nii nee na kon day toog du dem nee na ki ki koy seet si nii Abidjan la jóge te joxante woon nañu rendez fu ba pare nee na suba day jàll fuuta moo tax nee na waxu ko sax day ñëw mais daf ko bett nee na nga jéggal ko li mu la dagg te toogal ba lépp jeex nee na nga jéggal ko ko te yàlla tax nee na nga ñaan nee na beneen yoon nag day ñëw spécial rek toog nee na moom xol bi daal ñëw na te fii la nekk itam insha allah insha allah nee na nga def ñaan nee na fi ñu toll nii soo wootee rek lépp insha allahu mat na jiyaar àll ba wonoo na nitu yàlla yi nga fi woo ɓe na ñi ngi fi wax yanti aqiida makko finde makko na mu fekki si maanaam sa yéene ak sa xaqiqa bu mat bi on nee na ñaan boobu noonu ëpp na ci moom nee na mënu koo yenu hmm. wallaay ndeysaan ah. ah ñu def ko ci ndigalam moo ñu jox ndigal ñu def ko la Cheikh Sukayri waxoon Seydul Haaji Malick ba ko Maodo bindee ijaaza ne ko dama bëggoon lettre ne ko dama bëggoon nga bindal ma ijaaza ma barkeeloo ko Seydi Hadji Malick moo ko wax Cheikh Sukayri Cheikh Sukayri ne ko tiijaan Tijaani wax na ma yaqazatan ak rasulullahi ne nga baal ma sax joxoñ bi ma lay joxoñ ne su ma la bindalee ijaaza te aw ma ci sa ndigal yow Maodo mm. ma dog ci tarixa bi mos ngeen dégg loolu mu ne ko kon yaa may jox ndigal man Sukayri ma door laa bindal ijaaza Seydi Hadji ne ko jox naa la ci ndigal mu door a bindal mu door bindal Maodo ijaaza demal ca Ifhaamul Munkir yi am na ca lu Maodo indi am na ca loo xam ne nag boo toogul ak doomu Maodo doo ko xam dégg nga wax kon nag ñuy foofu lañ sukkandiku rek yaa ñu jox ndigal pour ñu ñaan waaw ah. <laughs> kay ndax ñemewuñ ko waaw ah, kay waaw ah. mm-hmm. alhamdulilahi rabbil alamin ci sa ndigal arrahmani arrahimi maliki yawmi ddin bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yowmi ddin iyaka nacbudu wa iyaka nastain iyaka nacbudu wa iyaka nastain iyaka nacbudu wa iyaka nastain ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim min annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihina wa xasuna ulaika rafiqan gayri almaxdubi alayhim wala dalin amin allahuma salli ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi al qurayshi al makki al madani al arabi al abtaxi al hashimi al fatixi lima uxliqa wal xaatimi lima sabaq naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi xaqa qadrihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim salaatan tu'arrifuna wa tuusiluna biha iya salaatan tunjiina biha salaatan tunaasibu qadrahu wa miqdaarahu al-azima indak wa tamla'u al-azalla wal abad wal aradiina was samaawaati wa maa fiihimaa tuslihu biha su'unana ad-dunyawiyata wal uxrawiya wa taqdi biha xawaaijana wa xawaaija man asnadu ilayna xawaaijahum wa taqdi biha xawaaijana wa xawaaija almuslimina fi mashariqi al-ardi wa magharibiha wa taqdi biha xawaaijana wa xawaaija almuslimina fi mashariqi al-ardi wa magharibiha wa tunjiina biha min suu'i al-xaatimati wa ka'aabati al-manzari fi al-maali wal ahli wal awlaad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 lil abdi anil wusuli ila mawla wal maradi wal mawti fi safar innaka waliyu zalika wal qadiru alayh wa anta ala ma tashaau qadir wa bil ijabati jadir nicma al mawla wa nicma an nasir allahuma arfa darajatina min ad-darajati al ula allati la darajata fawqaha fi ad-dini wad-dunya wal akhirati maa nabiyiina wa siddiqiina wa shuhadaai wa saalihiin wa xasuna ulaika rafiqan dalika alfadlu min allah rabbi yassir wala tuassir yassir wala tuassir bi xaqi sa yajcalu llahu bacda usrin yusra wa bi xaqi fa innama al usri yusra anta waliyu dalika walqaadiru alayh wa anta ala ma tashaau qadir wa bil ijabati jadir nicma almawla wa nicma annasir bismillahi rahmaani rahim subula salaami bikum subulan mumahadatan laa taslukuuna biha amtan wala iwaja antum wadiata mawlana alxafiidi wa man yakun wadiata mawlana alxafiidi naja bismillahi tariqikum arrahmaani rafiqikum arrahimu yarhamukum xaysu tuujahtum allahumma yaa kaafi yaa xafiizu yaa salaamu sallim na wa sallim man maana waxfaz na waxfaz man maana wa ballir na wa ballir ma maana bi rahmatika yaa arhamar rahimin yaa rabbal alamin bi xaqi kaafaha yaa ayin saad wa bi xaqi alif laam miim wa bi xaqi alif laam miim raa wa bi xaqi nuun wa bi xaqi qaaf wa bi xaqi yaasiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfaatixi lima ugliq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 fexe leen ba seen toogaay bi fii ak seen ñëw bu mu doon toogaay ak ñëw bu nul bu leen ko dara jalal nag ci àddina samedi bii passé maa ngi fanaan Tiwaawan jàngi al amin al amin sama baay la c'est mon père wallahi lazim sama baay la dëgg dëgg dëgg dëgg te yàlla yàlla rek moo mën defar al amin mooy sama baay Serigne Mansour bi ma bokkal di sama frère yàlla rek moo mën defar ba tax na lii leen fi andi ba ñu jullee timis ak léegi ba ngeen defee xadara di 17 heures laa jógee sama kër cité port timis ji raw na ma ndax embouteillage lépp raw na ma. fii laa jullee timis léegi sëgg déy waa ji ne ko ndax da ngeen julli gee mu ne déedéet ma ne alhamdulilah pour bëggoon a fekke au moins benn julli fii parce que pour man c'est très important waxuma nag nekk bi ngeen fi ne waxuma nag daje bi ngeen fii daje mais da ngeen fekk da ngeen fexe ba kenn ku nekk def moroomam ni boppam tant que àndu nekk benn shérif mii bu doon junniy wàlliyu di di xaale di leen tufli du ngeen avancé un centimètre te seen njulite du wér ah parce que nit ki loo bëggale sa bopp boo ko bëggule sa moroom sa njulite du wér du ci àddina nag du wér mukk këru diine nag walla daara wala yu mel nii reyante beeg Euh, si sante beeg añaanante bi da da da foog mu am fi ala kulli alin Tiwaawan Seydi Hadj Malick ba mu ne ba muy jàngale ba mu yàgg mu ne bëri jóg taxaw xëcc der bi teg jàpp ba tooy ne allahu boobu laa muy wax akbar dana asalaamaaleykum taalib bi nekk ah waaw sëriñ bi lu xew mooy dafa am lu mu doon bëgg ñaan. te su ma ko ñaanee dinaa teggi sama tànk ci sunna Seydina Muhammad coow li am ci awoon laa bëggoon a ñaan mu dakk te su ma ko ñaanoon yàlla may ma ko te coow laa nga jóge jëkke màq ba ñu mun doxatal Seydina Muhammad màq ba mu gàddaay dem Médine mais lu bon yàgg na ci àddina lu bon dafa yàgg waaye fexeel ba ku lay ku la def lu bon na nga def lu baax lu bon lu baax moo koy fay sama jigéen bii ma yóbbu Makka en 2017 jaay na sama kër lekk xaalis ba saaga na ma lu bon lu ngeen yaakaar yéen ñi fi toog def na ma ko dem na ba naan sama yaay yow juruloo ko moom rek te jigéen la saa yu ñu toogee du ñu defaree une fois laay ñëw man Sénégal par an. mooy gàmmu comme ni ma ko defee bu ñuy defaree rek mu jóg teg sànni loxoom faalewu ma ko nangam na ñu génn mag ñi ne waaw yow lii lu ciy pexe may leen li ciy pexe dinaa ko def bu leen nu dajaleeti parce que c'est humiliant saa ngeen dégg ne ñëw naa rek ngeen bàyyi seeni soxla ñëw di ma jéem a euh, jubale ak moom comme moom jubbo bi safu ko bàyyi leen ma dem su ma demee danaa seetaat dinaa seet danaa xalaat ba xam kii nan lay def pour que ñu mën a juboo toppul sax ci man benn ñaareel ba bokk nu bàyyi ndey rek lañu bokk man sama papa mu ngi dee trois mois après ma naissance ban souffrance moo gën a metti ci loolu ci àddina trois mois après ma naissance donc sama bàyyi ba muy gëm Cheikh Omar Foutiyou ak léegi ça fait soixante-douze ans parce que nit ki bala nga xaar tuddi sa doom da nga koy gëm mu ne sama yaay bu ma dundee mbaa ma dee bés bu ma dee doom jii nga ëmb su juddoo bu nekkee góor tuddal ma ko Cheikh Oumar Foutiyu sama yaay dafay toog ba mu yàgg mu ne ma doom ma ne ko ah mu ne ma li may liggéeyal sa baay ma ne ko ah mu ne ma incha allah di ko gis mais rendez bu compte mais boroom kër bu xëy ba juróomi dërëm yi mu jënd këriñ amatu ko ci këram te su ma génnee su ma génnee fii taxaw mais nit ñi dañuy daw te buntu sëwe euh, sëñ euh, Babacar nit ñi dañuy tax ay papa ji ñaanal ñu papa ji ñaanal ñu ni ni aw ma jëkkër papa ji ni ma gërëm yàlla ma gërëb yàlla sëlma lenn am na rus na maa yuuxu rus na maa jooy du ñaan duma tàllal samay loxo du ma sama sama soxla duma ko wax kenn dama ne yàlla defal lu la neex parce que ba muy neex jooyu moo nga di ma jox ay millions may joxe le 23 mars 2019 waa Kër Baye Niass ca ko ñoo ma pare la yiy jàng te booba awma ñaari dërëm te xamuñu ci lu ma ne waaye lam fa war yépp def naa ko fa def naa fa lépp lépp lépp lu ma mën def naa ko fa waa Kër Baye Niass te man waa Kër Seydi Hadji ndax li ñu dégg ne man damay damay damay def ci yàlla damay le donateur lañ ma tuddee man damay joxe waaw day metti waaye da da dana sedd guy lu shérif bi lu mu garanti fii sama soxna dañuy toog ba guddi mu ne ma waaw mais situation bi lan moo ciy pexe ma ne ko man ñaan naa yàlla yàlla na yàlla faj samay aajo fii ci Sénégal wallahi azim te nii laa ko doon ñaane yàlla boobu Chérif toogul tooguma gisuma ko dégguma ko Chérif ba ma ko dalee suivre ak léegi mais bu dul woon réseaux sociaux ma wax leen loo xam ne lii tey nit wax na ci Chérif lu jaaduwul waaye dootu ko defati man ma ni kii naan dabbaax naan Seydi Hadj Malick naan Tiwaawoon ma di fa naan ñuy wax ci moom lu bon kii xaw ma ko mais tey ma jël ko défense te boobu xaw ma kuy shérif dama koy gis rek ci réseaux sociaux yi comme tout le monde. dama ne le 23 mars mhm. bi ñu may pare nag jàngi waa Kër Baye Niass yi. Mhm. boobu aw ñaari dërëm. Mhm. waaw te xamaluma dara nag. la ma fa war lépp def naa ko. toog jàpp sama njàmm. dama leen wax ni. waaw preuve baax na de. waaw jamono bii mu ngi nii hmm. dama leen wax ni bu dul woon réseaux sociaux dinaa leen wax lu yéeme Chérif mosuma ko gis xaw ma ko réseaux sociaux mu naan yàlla yonent bi euh, euh, sëñ Abdoul Aziz Sy euh, Dabaax Tiwaawoon Seydi Hadj Malick Cheikh Omar Foutiou man Cheikh Omar Foutiou mais li ma xam ci moom lépp ci Chérif laa ko nampé mu ngi nii toog ci moom laa ko nampé te man Cheikh Omar Foutiou kuy wax ci moom mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire dama ne ba sama bàyyi gëmee Cheikh Omar Foutiou ak léegi sa fait soixante-douze ans bi may dem Makka sama soixante-dix ans laa doon féetee. ak jël sama turu El parce que ñëpp Cheikh Omar Cheikh Omar Fouti lañ leen ah, tuddee waaw Alaaji Omar sax la ma ne nag naa dem jëli El bi ndax muy dëgg tubaab yi waaw Alaaji Omar la ñuy wax ah mais Sénégal dañuy jël turu nit di ko di ko di ko modifier man dugg naa école primaire en 1956 ba bi ma génnee école primaire en 63 Doucouré rek lañ may woowee sama sama sant rek lañ may woowee sant rek lañ may woowee c'est formidable donc pour euh, yeggali parce que dañu war a julli. Mm-hmm. dañ mm-hmm. dañu war a julli. Euh, mm-hmm. ah, bu leen ko fay waaw ah, bismillah dugg El dañu war a julli. li ma leen waxoon sànq rek laa lay laay bamtu ñu tëj ñu ferme dama ni seen toogaay bii na doon toogaay bu leen di jariñ bu leen toog toogaayug nii parce que shérif a fi bu doon téeméeri shérif te kenn ku ci nekk li nga yéene sa bopp yéenewu la ko sa moroom lu ngeen fi def zéro la dix mois ku ko toog ci ay jafe-jafe te sa xol mosula jëf-jëf yi benn yoon am na lu yàlla def ci yow. man wéeri na ma ne am na lu yàlla def ci man. mosuma tiit nag mosuma tiit lu ko waral parce que dama ne lébu yi ñu naa mën a leen tànk man tàggewuñu ma yàlla te buñ ma tàgg yàlla sax foog ma dem ci ab robam ah, te dem ci robam sax du ma doy foog ma fekk fu ñu koy foog paxam ñu koy dugal foog ma gis ko waaye nag tànk yàlla deewul man awma tiit ci àddina yàlla laa wax de tànk kenn deewul rek mu ngi mu mu ngi ñu tiim mu ngi ñuy def loolu ñuy def mu ngi dara ñuy bàyyi man awma tiitànge bon nag comme yàlla di dee awma tiitànge te la ma te la ma affirmé woon wax naa ko wax naa ko léegi dama ni bu fekkee ni shérif mii sama ajo nar naa faju ci moom yàlla naa ko jot téléphone parce que ba ma ko jotee téléphone xam naa dinaa fi ñëw bon nag Aïdara maa ngi lay maa ngi bëgg ci yow nii nga ma bëggale tey yàlla na la ko yàlla bëggale bëggale ko mbooleem ñu fi ne ndax sama maam El Hadj Cheikh nee na lu baax ñépp duñ ko bokk xoolal ni ngeen tuutee macha allah bi groupe bi attroupement wàcc leen fii léegi ci suuf y a des de personnes yoo xam ne ñu ngi def lu neexul yàlla. yéen ngeen toog julli julli timis ba léegi yéen a ngi fi toog di déglu naan yàlla nee waaye da ngay defe ne loolu yàlla dana ko neenal yàlla du ko neenal dama ne na ngeen góorgóorlu te shérif mii na ngeen ko soigné soigné bi xam nga mooy lan mooy de temps en temps ngeen bàyyi ko mu dugg ruq rek for ñaari bët xam naa ne mënu ko. mënu ko je sais que non man ah mais sama papa Alamine ba ma seet see ba ma ko trois quatre heures du matin mu boo Khalifa Lo. Khalifa koy gis démb ñu ngi ko teg ci benn. woo ma Cheikh ma ne ko ah, Khalifa Lo lan trois heures quatre heures mooy vingt cinq pas bi mu ne ma dama nga wuy ji ma ñëw ne koŋ-koŋ mu ne ah, ma ubbi dugg. daal di ko ne ah nelawuloo mun na ma cheikh nelaw ma ne ko ah mun na ma cheikh man aw ma nelaw nelaw toogal ma toog billaahi waxtaanu nag man ci diggalal bi toog jël mbàjj mi mel ni ku ko sangoo à demi yëkkati loxoom bu tedd ne ma cheikh ma ne ah, mu ne sama tubay jii ma suma ko summi ndax jigéen bu dul sama jabar c'est extraordinaire dama jooy ba dafa ma yërëm dama jooy ba ba tëdd ci suuf mu yërëm moom da di may yëkkati ma fekkaat ko Tiwaawoon néegu Serigne Babacar Sy mu entré ma fa répété waat ma la même chose. Ah, waaw da ko lu ko waral. bu la yàlla teelee may ay dërëm ngay dabal ay oto yu rafet. warmaal shérif a tax ma mel nii de. Mm-hmm. damay toon ay costume karawaatu ainsi de suite mais nag ma war ka warmaal ko ci moom la jëm. <laughs> waaw. dama koy wormaal te fu ma ko war a mën a fekk itam dama koy wormaal rek bu dul bii di beneen di beneen di beneen yana am pagaay macha allah te nag boo yore oto bu rafet di ko dawal am astu jigéen ñi duñ la baax ah. duñ la baax te booba dama nekkoon fu dangereux muy kaw la kaw la nga gën a dangereux ma nekk kaw la di fa def lu ma neex mais nag mag ñi bu ñu la bëggee ñi du ñu jël ay yar di la dóor dañ lay jam ay masala di la dóor ay masala di la ay masala ba nga ba nga dellu gannaaw waaye dama xam ne xale bu jël biir de salatul fatiha depuis 83 moom laa wax sëñ Ousmane Kane nee naa ko papa ma nee naa ko maam mu ne ma ne ko am kurus yi mun ne ma ah lu xew lu xew doom ma ne ko xool sama buntu kër xale jigéen yaa nga nële toog di ma xaar. te man mënuma boole kurus nag ak xale yu jigéen léegi nag damay dellu kurus gi yow la fi Cheikh yaa fi togo Cheikh Ahmad Tidiane Sirif am kurus gi ma dellu jigéen mu ne ma déet ëpp naa def mu ma jigéen ñi daañu la bàyyi daañu la bàyyi ndekete booba walla wallahi azim ndekete booba mu ngay nas baatin sama diggante ak seen Abdou Aziz Al Amin booba xaw ma kuy Al Amin Alaaji Ousmane Kan ponkal ah ma xam ko bu baax ni ma la xamee laa ko xam alaaji Ousmane Kane mais macha allah ma xëy bés taal sama oto dem oto de ci di gaare gis Serigne Abdou Aziz Moustapha Sy euh, Mouhamed Diouf bu alaaji Tamsir Diouf bu bari ñi bu bari ñi ma dawal daw rek dal di gaare oto bi rek daw dellu si ne papa si Moussa Cissé euh, Diouf Moustapha euh, euh, euh, Diouf. téye ci jël loxo yi tekk ci boppam nan oo oh, waaye mais kii xam na sëñ sëñ Abdou naan ko waaye mais boo ko xamee dimbali nu kii ñëw kenn ku ne mu jaar ci suuf sa sant te mën na ñoo wax aw santam waaw wax ñu nu ma sant ñu ñu fay ko ma ne ko Moustapha mu naa ma ne ko man doomi Aram sekk bu Waali Seck ca Bargny mu ne ma dukkure ma ne ko waaw gis nga de dukkure yi ñëwaat na ah. <laughs> mu ne ma Doucouré ma ne ko waaw sëriñ bi daal di may fay Moustapha daal di may fay ma leen fu ngeen jëm ñu ne ah nu ko taxi la ñuy xaar dafa am course yu ñuy doxi may leen taxi bi bàyyi leen ko maa ngi ci seen disposition ba kere ma leen di yóbbu aéroport ngeen ñibbi ñu am ak man ñetti fan sama kër bu ma xëy du fa ndékkee du ma fa añ du ma fa reer te dama fa yóbbu c'est deux heures du matin trois heures te dama naan ngam ngam ne bërit jàpp ñaari ba tooy julli ñaari rakka toog di xaar fajar su may julli fajar moo pare rek gaare comme taxi damay dem gaare ci buntu aéroport bi euh, hôtel di leen xaar Serigne Abdou ni ma ba ma ko yóbbu aéroport mu ne ma kañ nga ñëw Sénégal ma ne ko man dinaa gàmmu si mu ne ma boo ñëwee Sénégal da nga ñëw directement seet si ma Tiwaawan góor googu am kóllëre moo baax baax biñ may fexeel ma ne lijjantil leen ma su ma gàmmu suñu gàmmoo ba pare damay dem damay ñibbi samedi passé maa ngi fanaan jàngi al amin mhm. ci waawoon ndax bu dul dara sax mhm. ajaa maam ajaa maam pharmacie mhm. sama kër am na fa néeg toilette intérieur ak climatiseur ba mu yëgee sama mbir ñëw sama kër dafa toog di jooy ba dama ko mujj yërëm ma ne mii mais Adja lan la mu ne ma yow dara walu la dal mu ne ma yow nit ku baax nga waaye na la wóor ni lii c'est passager te wallaahi ki ko def dana daj ak yàlla fii dana daj ak yàlla fële. mooy li mooy li Chérif wax léegi. bon nag su ma ñëwee tey jii ci Chérif ñëwuma fii pour e Chérif na def ay dara dama lay ziar ziaru ziar ma noonu de sama problème ma fi andi sama soxla ma fi andi de te soxla si yéen yéen ñëpp yow ngeen doon te moom soxla si bu fajoo waaw soxla si bu fajoo gis nga lii lii mu sol nii hmm. nun bu nu neexee nu def ko ay natt de table lu <laughs> dara ci ñun waaw lii lii du dara mënoo sëñ Abdou waaw ma ne ko papa ça c'est rien du tout c'est du dara du dara waaw du dara waaw donc ah yàlla ñu yàlla dolli sutura ba Serigne euh, Tall mu tuddati mhm. Seydou Nourou mhm. ba ma joxee juróomi dërëm yi daf ma ne àll suureen àll suureen àll suureen ma ne waaw àll suureen mooy lan ñu ne ma yàlla na la yàlla suturaal alaaji Tamsir Sakho ma woo ko ba ma ko pour mu jàngal sama yaay ma fekk ca biir néeg ba mu toog néegu ajaamaam faama mhm. ma tëj bunt beeg caabi mu ne ah la xew doon bëgg dañu bëgg a ñëfantee kurpañ ma ne ko déedéet mu ne maa ah, la xewe ma ne ko yaa ngi ak ñeenti jabar jaayoo but seen lépp ngi dox waaye li nga yor jox ma ci bokk mu a ma laakaa doyee laakaa doyee ñaanal yàlla mu defal la sutura laa la doyee lii mais c'est extraordinaire ah c'est extraordinaire ah ñaanal yàlla mu defal la sutura mu ne bu la yàlla defal la sutura defal dana lépp ubbil bunt bi ma ubbi bunt bi mu ne ma toogal ma toog mu ne ma cheikh ma ne ko ah. mu ne ma ku dul am euh, kalkalu àddina amul nit ku ne nga am problème mu àddina ca Seydina Muhammad la jóge ba ci ñun ñii bon nag shérif mii la ma leen ci waxoon rek laa leen ciy waxaat te mooy doon sama derniel kàddu dénk dénk naa leen ko ndax neewu ma fi mm-hmm. toppatoo leen ma ko bu baax te di ut fu ngeen koy fu ngeen koy làq muy nelaw waaw nay nelaw parce que nit ku nekk mm-hmm. eh, xam nga tubaab li muy bari pexe lépp xamul nelaw mooy lan daf na ne daf na la sommeil est un truc réparateur un truc quoi xamu ko waaw yàllaa ko jaxase foofu nag parce que mënu koo xam waaw waaw tubaab nee na le sommeil est un truc réparateur